waaw mbokk jullit ñi mbokk taalibe yi di wéy di ànd ak yéen ci liggéey bu bi eh, di bésu xasida yi ñu toog ak nag eh, sunu sëriñ sunu jëwriñ eh, sëñ Moustapha Mbacké moom mi nga xam ni fii ci Agadir cellule Agadir moo feggoo ci culturel bi sëñ Moustapha ana lan sànni mbokk taalibe yi at loo leen di dolli ci bés bi gannaaw dox bi nu dox ci seenu passé at seenu bëgg ak seenu yéene ba yegg si ci bés bi te yéen it ngeen ànd kooku mbokku taalibe yi mbokku daara aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wahdahu wasalaatu wasalaamu ala mawlana rasulillah sallallahu taala alayhi wa sallam ñoo ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam di sant Cheikhna Ahmadul Khadim di nuyu mbokk taalibe yi ñuy bàyyi xel ñëpp rek ak fu ak fu mu mën a nekk rek di jiital ci ñëw bi Serigne Mountakha moom Cheikh Mamadou Bassirou di ko ñaan yàlla suñu ba doon mu yàgg fa lool te ànd ak yow ba lépp li nga xam ne yéene na ko te fas yéene koy liggéey sëriñ bi yan na ko defee nam ko bëggee te ñu fekk ko te ànd ko moom barkib sëriñ bi waaw jëriñ manga ñu ngi leen nuyu baax di nuyu mbokk yi ñu dellu di nuyuwaat mbokk yi ñuy bàyyi xel ñëpp rek waaw comme niñ ko gisee ci nañ ko nañ ko nañ ko doon wootee jamono ji jëpp rek <clears throat> yàlla def na bis bi agsi nañ ci jàmm ba na nga xam ne noonu lañ ko waxee woon muy bis boo xam ne daanaka bisu jàmm yàlla la bisu sant yàlla la bisub jull bisub eh, bisub ndokkeel la bisub eh, mën naa ne bisub jaamu yàlla ci tënk daal sant nañ ci baax ba daanaka liñ ci séntu woon lépp maanaam bu dee jëm ci nañ ko gisee ca suba ba léegi ñu ngi ci njàngam alquran ji comme nañ ko annoncé woon jëm ci njàngam alquran di jëm ci njàngam xasaay di lépp jëm ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yi nga xam ne moom la ci sëriñ bi def lépp daal sant bu baax rek ba wax dëgg yàlla bis bi moom kawe na faw fawxe na lool suñ jot ba nañ ko fooge nañ ko nañ ko fooge woon nañ ko fooge ak nañ ko bëggee woon wax dëgg yàlla kawe na lool lool wax dëgg yàlla ñu ngi ciy sant bu baax rek di ñaan yàlla lépp li nga xam ne moom lañ ci yéene woon euh, te séntu woon ko ci yàlla sotti lépp rek. te ñu yàgg koo fekk loolu ba lépp li nga xam ne moom lañ ci yéene yàlla na suñu borom defal ñu lépp rek surtout lépp barkeb sëriñ bi incha allah te ñu yàgg koo fekk at yu bari lool rek barkeb sëriñ bi incha allah ñu jégalu waat ba xam naa ñuy santaat suñu mbokk mbokk tijaan yi ñi nga xam ne wax dëgg yàlla gis nañ niñ jàppee ci bis bi boobu ba léegi ñu ngi ci ci ci ci bépp liggéey bu nekk rek ñu ànd nañ ci ñu wax dëgg yàlla ñu ngi rafet bu baax seen seen teewaay di ñaan lépp li nga xam ne aw yiw la bu ñu fi am ñu bokk ko ñoom barke sëñ bi ak bépp mbokku jullit rek sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah euh, euh, euh, di la ñaanal nga yàgg sunu kanam te ànd ak wér yéene bi ngeen am ci liggéeyal seen maam sunu borom dajale leen ngërëmam kon mbokku jullit ñi mbokku taalibe noonu la ñuy ànd ak yéen di woy ak ci bés bi nga xam ni mooy ne xasida Touba Fatxul Xafaar Maroc jërë ngeen jëf jërëjëf soxna yaram euh, ñu ngi lay jaajëfal euh, at mbokk soxna yëpp euh, di leen jaajëfal xam naa noonu la ñuy wéy di ànd ak liggéey bi tey ji ci bésub xaside yi fii ci Agadir jërë ngeen jëf